Denis Ndour maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors ngay vice-président wu Ligue sénégalaise des droits humains tey jii nag di bés gi ñu jagleel euh, ndaw muy tout tànk yi nga xamante ne ñooy nekk ci mbedd yi ajjuma euh, jile euh, nan nga jàngate problème bi nga xamante ne daanaka day gën a persister fii ci Sénégal. waaw problème bi nag problème bu am solo la boo xamante ne bu lëj la li mu lëj mooy dafa am ay gàllankoor yoo xamante ne li ko waral ci mbirum aada cosaan. ak doxalin ak suñu culture moo tax ba wax dëgg yàlla yenn ñu koy gis ah xale yi ci mbedd mi nag ñu leen fay yóbbu bëri na am na xale yoo xam ne dañoo gàddaay maanaam dañoo daw seen kër daal di dem ñoom la wax xale yi fàq daal di tax ñu dem parce que dañ leen bunu xataal seen biir kër soit dañ leen di dóor wala en tout cas nekkin bañ fa nekkee daal euh, doy na waar ba nga xamante ne am na ci ñoo xam ne sax dañ leen di sàkku euh, ba tax na ñu daw ñu génn seen kër ne du ñu delluwaat am na ci xale yoo xamante ne nag dañ leen abandonné maanaam seeni wajur ñoo leen bàyyi ah, mu ne doon benn wayjur am na ñoo xam ne benn wayjur la ñu am parce que gisuñu seen baay wala peut-être gisuñu seen yaay ah, te eh, wayjur moom mbiru responsabilité la donc bu fekkente nit ki jëlu responsabilité mun na bàyyi doomam ci mbedd mi te du ko def dara mu nekk ci leneen ah, am na ñoo xamante nag. Euh, ay taalibe lañu waaw mais taalibe yi nag ñoom euh, seen catégorie mooy ñoo xamante ne nekkuñu ci mbedd mi rek euh, des fa mais lañ fa nekk ci mbedd mi ci ay jamaano donc ay waxtu yoo xamante ne ci lañ nekk ci mbedd mi waaye boo xoolee ci dëkk yi nga xam ne ay dëkk yu développé lañ leen mën a duppee ñoom bu ci mel ne États-Unis par exemple fa fala fala am expérience ndax nekkoon naa Euh, xale buy taxawaalu ci mbedd mi police moo koy ñëw jàpp bu ko jàppee day waayi parent ne leen seen doom kat dafa waroon dem jàngi waxtu bi waxtu jàngi la waaye gis ñu ko mu jàng ci mbedd mi la nekkoon donc foog ngeen ñëw wuy ñëw pour ñu xam lan moo tax su fekkee ne parent bi amul euh, nu mu ko yoree wala en tout cas warugar li mu bi ci war ci moom def ko état da koy nangu ci moom daal di ko yóbbu ci benn centre boo xamante ne ñoom dinañ fexe ba xaale bi dina jàng xale bi dina dañ ko topp daal ba un loolu nag moom la ñuy woowee suñu suñu état yi fii ñu war a def lu ni mel pour ñu def ko nag il faut que ñu tabax ay centres euh, sociaux yu bari yoo xamante ne euh, ci diwaan yu nekk ba bu ñu gisee ay xale ñu def benn recensement xool lan moo motif bi motif bi ñu leen pour ñu mën leen a tàggat. Hmm. jàngal leen métier <coughs> euh, pardon wala fexe ba ñu mën a jàng si école bu fekkente ne nag dem nañ ba xam. ñii fan la ñu jógee lan mooy lan mooy motif bi ñu fexe def li ñuy naan médiation médiation maanaam naka la ñuy def ba delloo leen si seen ñu wayjur am na ñoo xam ne ñu mën a delloo parce que duñu gis seen wayjur am na ñoo xam ne ñu mën a delloo parce que xam nañ seen wayjur fu ñu nekk ah, loolu nag euh, liggéey bu bu bu bu am solo lay doon waaye day fekk aussi moo am li ñuy wax assez de de de travailleurs sociaux euh, am nañ fi benn daara bu kawe boo xamante ne day tàggat. Euh, ay liggéeykat ci ci jublu ci dimbali xale yi ak lépp lu jëm ci mbirum social ñooñu am nañu formation bi war pour ñu mën ko def waaye nag bëriwuñu donc loolu état la mën a ñaax pour que recrutement bi gën a bëri comme ça su ko defee ñuy toppatoo xale yi euh, yi nga xam ne dañuy nekk ci mbedd mi bon ñu utal leen ay sant gis nañ fi sax ay association yu yoo xam ne yu mel ni empire des enfants yu góorgóorlu di di récupérer le maximum waaye xam ngeen ne bu fekkente ne état du la dimbali ah day doon lu doy waar moo tax gis nga fi ay kuréel yu yëngu ci ci ak yelleefu doomu aadama rawatina ci xale yi waaye le plus souvent euh, seen doole day des ginnaaw ba tax na euh, maanaam li ñuy liggéey gaa am na solo mais du doy parce que xale yi ci nga mbedd mi moo bari. Mhm. loolu nag euh, dañ ciy ñaax aussi ñi xam ñoom ñooy. Euh, ñoo yor alxuraan yi daara alxuraan yi parce que dañuy gis xale buy dem yelwaan yi te ñenn ñi parfois seen seen sen sëriñ yi ñoo leen di exiger ñu andi xaalis xam ko kooku kooku ko exiger mu andi xaalis tey nga ne ko nag may andi téeméer boo ci amee juróom-benn fukk euh, wala euh, ay ay ay ay xale ku ci ne bu la andilee téeméer lim bu takku ngay am ci weer bi bu bu ko defee at bi nga am ci xaalis bu bari loolu nag exploitation la. waaw parce que euh, waroo rek nit ki parce que da nga ko war a jàngal nga bëgg léegi mu andil la xaalis euh, bu njëkk euh, xale yi buñ daan dem ci daara yi seen wéjur yi dañ leen yëpp donc andil àndaale sëriñ bi ceeb wala dugub wala leen loo xam ne ko mbéy pour jàppale ko sëriñ daara bi comme ça moom nu mu dundalee xale bi waaye gis nañ ne loolu daanaka presque amatul donc ci la état jël décision ne moom dafa bëgg a def modernisation des daara donc pour fexe ba dootuñu dund ci promiscuité promiscuité maanaam dundin boo xamante ne dafay xata xata xat ba mbiru électricité dafay doon problème gis nañ fi ay ay ay ay ay yu am ay xale lakk donc yooyu pour pour moytu ko mooy ñu dund ci dundin boo xamante ne fi ñu nekk lu doon fu xat-xat boo xam ne dañ naan fii promiscuité la loolu nag mbiru état la waaye dama jàpp ne mbir mi euh, pour saafara ko du état rek ñëpp ci war a jàpp mooy ñi mooy nit ñi yor daara yi mooy wajur yóbbu seen seen seen doom yi ci daara yi mooy également euh, ñëpp ñuy yëngu ci àq ak fu doomu aadama ci naka la ñuy defee plaidoyer maanaam naka la ñuy ñaaxee pousser état ba li nga xamante ne moom lañ bind ci code de l'enfant euh, ak li ñuy wax les droits des enfants ñu mun ko respecter loolu nag législation foog mu ci parce que législation boo amee ne yow boo defee lii sa doom bu defee lii lii daan bii mën na la dal comme niñ koy defee États-Unis wala yeneen i réew bu boobaa xëy na am na yenn pare yoo xam dañu gën a responsable pour gën a euh, seet seen doom ci lu mu ne demuñu rek joxe koy borom sëriñ bi rek et puis pare nañ ci xaar euh, mu nekk mag pour ñëw ci ñoom waaye dañ koy nemmeeku di xool ci naka lay dunde et cetera et cetera donc loolu prérogative yi il faut mu am benn aspect euh, juridique boo xamante ne day tax day am benn encadrement ba nga xam ne way yi ah du ñuy xam ne seen doom li leen ci war bu ko defulee yoon mun a dal seen kaw loolu nag ñu ngi ci ñu ngi ci doon waxtaan lu bari euh, ba ba ba xaatim li ñuy wax code de l' enfant mais génnagul nekkagul lu ñu promulgué loo xam ne c'est encore officiel. mais lan moo lan moo nekk euh, euh, ci problème bi nga xamante ne day gën di fës. waa problème bi man jàpp naa ne ndóol andi na ko parce que plus ñuy dem situation bi crise économique bi di gën a tar. ah am na ñoo xam ne dañ jàpp ne mun nañ mun utiliser seen seen seen doom pour pour xaalis wala koo xamante ne peut-être euh, euh, borom daara la mun na utiliser ay taalibam pour xaalis waaye nag lool du du lu war euh, waaye jàpp naa ne bu xëy na ndimbal boo xamante ne buñ ko amoon xëy na du leen yóbbu ci loolu waaye nag loolu justifié wu ko maanaam nit moom mun nga nekk ci ay difficulté waaye difficulté warul justifié nga def naka su dul noonu donc jàpp naa ne état buy constaté nag di gis. moom mu war ne ah lii kat xaar ma jóg ci xaar ma ñëw jàppale ñi pour que lii mën a dakk te jàpp naa ne ci ci yoon boobu rek la ñu mën a aw pour que mbir mi mën a dakk. alors euh, ci responsabilité yi tamit euh, ana fan lañ ko mën a féetale ndaxte am na tamit ay waajur yoo xamante ne dañuy gunge seen ay euh, tout tànk ñuy dem ci mbedd yi di leen yónni sax ngir ñu mën a saraxu. waaw loolu nag ñu ngi koy commencé gis phénomène bu gën a bëri fii ci Sénégal waaye jàpp naa ne lu ci bëri nag ay. Euh, euh, dëkkuñu fi euh, boo koy xool ay doxandeem lañu bu ñuy làkk sax da nga xam ne ñii duñu ay sénégalais waaye man dama jàpp ne état moo war a def liggéeyam parce que état warul seetaan li ñu mel muy muy muy gën di law te defu ci dara donc jàpp état wax dëgg yàlla am na am na bu bëri bu mu war a jouer pour que loolu mun fi dakk waaye nag ah du ñàkk nag dina am ci suñu mbokk yoo xamante ne ci waa réew mi ñuy jëfandikoo seen doom ci yooyu ah, loolu nag loolu rek moo ko andi du leneen donc jàpp naa ne fu ñu fajee problème fu ñu ko gisee ci biti mooy conséquence bi war dañoo xool cause bi lan la bu ñu fajee cause bi rek xëy na conséquence boobu dootuñu ko gisee faj cause bi nag mooy ah bu fekkee ne mbir am na ci biir kër gi ñu bañ a nëpp nëppal ah gis nañu benn nijaay wala benn. bu bu exploité jarbaatam wala mu tëddee ko wala yu demee noonu ah ñu faj ngir mi boola ñu bañ ko déplacé ba tax xam ne xale bi su dawee ñu naa gàcce la bu ñëwee ci kër gi ñu waxtaanee ko nangam nangam bàyyi xale bi boobu noonu lay def ba noonu mu figee loolu loolu nag baaxul dañ ko war a xoolaat. ana lan la ci euh, Ligue sénégalaise des droits humains jot a def ngir mën na. waaw liñ ci jot a def te di ko continuer di def mooy euh, un plaidoyer auprès de l'État maanaam. di ñaax état di ko ne ah ñun de lii la ñuy suggéré nga def lii nga moderniser nga tabax ay centre euh, fexe ba recrutement des travailleurs sociaux mën a yokk euh, su ko defee ñu mën a résorber euh, xale yi nga xam ne ñoom la ñuy distribué waaye aussi jàppale kuréel yu mel ni empire des enfants yeneen i kuréel yoo xam ne dañuy yëngu ci xale yi nekk ci mbedd mi di leen dimbali di leen jox lu ñu lekk di leen jox fu ñu tëdd di leen jàngal ñooñu dañ leen war a jàppale te loolu nag ah jàpp naa ne état moo ko war a mën a def. Mm-hmm. donc ñun suñu liggéey ñaax état pour mu mën a gis yooyu parce que suñuy rapport day wane détail donc <coughs> sorry foofu la. état mën a sukkandiku pour dimbali leen. alors est-ce que am nga yaakaar ci gouvernement gu yees euh, gile nga xamante ni fi mu toll nii taxaw na ngir mu aar euh, tout tànk yi. <coughs> waa am nañ ci yaakaar ndaxte euh, son excellence bu mu jëlee kàddu dafa tudd ci ay ay propos ak yëlefu doomu aadama te loolu daawuñu ko dégg dañ daan wax rek fii ak yëlefu doomu aadama amu fii lépp fi jaar yoon waaye moom bu demee ba wax ko jàpp naa ne xëy na am na ci jublu ci ay réforme yu dëgër réforme yooyu na ci lañ koy xaar mu doon ci justice mu doon ci les couches les plus vulnérables maanaam jigéen ñi ndaw ñi ak euh, les personnes vivant avec des handicaps pour que seen ak ak seen yelleef ñu mën ko respecter loolu nag dama ci insister bu mu ne ak ak yelleef doomu fii ci les couches vulnérables damay def allusion ak ak yelleefu doomu aadama bi ñuy wax ci mbirum koom ci mbirum aada cosaan donc muy wax droit socio culturel euh, économique socio culturel parce que il faut que xale bi euh, mu am lu mu dundee il faut que xale bi mu feebaree mu faju il faut que xale bi aussi am benn affection bu fekkee ne ay waajuram nekk ñu war na nekk ak ay ay adulte yoo xam ne dañ koy jox une certaine affection boo xam ne buy màgg mu am mu xam bànneexu yaay bànneexu papa ba du nekk koo xam ne dafay ñi wala mu doon après beneen band ci ci ci ci société bi donc man jàpp naa ne ah responsabilité partagée la ñun nag kuréel la ñu li ñu rek mooy di di ñaax état waaye si di def des séances de sensibilisation comme ni ñu koy defee ay waxtaan yoo xam ne dañ koy def ci gox-goxaat yi di wax ñu mag ñi euh, xel bu ñu war a bàyyi xale yi euh, te booy constaté aussi ci mbedd mi ñoo xamante ne dëkkuñu fi ñu toog di taxawaalu wala ñu ñëw yelwaan ci kër gi après nga gis leen ñu toogaat ci mbedd mi war nga woo chef de quartier bi wax ak moom ne ko ah ñii kat war nañu wax ci seen i mbir donc loolu c'est des solutions à l'interne mais loolu nag sensibilisation la laaj. pour ne pas que ku nekk ne ah man kii jotee maa moom dara sama nekku ci xaw ma ko et cetera donc dafa am benn esprit de solidarité boo amoon tam bu njëkk bi nga xam ne moo tendre à disparaître parce que bu njëkk xale bi fu mu mënoon ci dem mun na faaj su ko neexee sax mu fanaan fa bu boobaa famille bi di dinañ ko accueillir après nag toog waxtaan ak moom ne ko nag kan mooy sa wajur lan moo tax nga daw et cetera fexe ba def li ñuy wax la médiation pour mu mën a dellu su fekkente ne gisuñu ko bu boobaa ñu déclaré ko police pour que police mën def enquête pour ñu mën a retrouver pour xam wax dëgg yàlla kan mooy euh, wayjuru xale boobu nga xam ne mu ngi traîner ci biir quartier bi mhm, donc ñun daal à notre niveau mhm. loolu lañu mën a gum ah, di wax nag état moom mi yor moyens yi moom aussi dafa war a déployer les moyens pour que problème bi ñu mun ko régler définitivement. en tout cas merci euh, Denis Ndour euh, may fàttali rek ne euh, vice-président bu Ligue sénégalaise des droits humains nga ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw maa ngi leen di gërëm ñu